mbokk yi teewlu saabal tomb nettali taataane seen xibaar ci làkk wolof Kaolack limub ñi faatu ca tax ma mabbu yokk na limub ñi faatu ca tax ma mabboon jëmm ca eh, goxub xaaxum eh, di koñ bu nekk ca Kaolack jóge na eh, ba ci ñaar yegg ba ci ñent di li ñu taataane ci APS ginnaaw ay waxtu yu yàgg yu ñu doon seet ci la wallukat yi génnewaat ci génnewaat ci màbbit yi génn góor gu toll ci juróom fukki at ak gone gu jigéen gu am juróomi at góor googu nee nañu mooy kilifa benn ci njaboot yi dëkkoon ca taax moomu moo ne woon itam boroom këru e, ndaw si ñàkk bakkanam ak liiram ba taax ma e, di door màbbu lu ëpp fukki nit itam jël nañ ci ay gaañu-gaañu ba rawle leen e, ca raglub alxaaji Ibrahima Ñas bu Kawlax saabal tomb net